الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان إن صاحب العقل السليم هو الذي يعد الزاد ليوم الميعاد وإن خير الزاد التقوى والتقوى إخوة الإيمان والتقوى إخوة الإيمان هي آداء الواجبات واجتناب المحرمات mbokk jullit yi ginnaaw buñ tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk jullit yi boroom xel mu set mooy waa ji nga xam ne day waajal boppam ca bésu rendez-vous bi muy dajeek yàlla jullit bi nga xam ne xelam dafa wér xelam dafa mucc xelam dafa set mooy waajoo xam ne fu mu nekk moom jullit boobu day xalaat ëllëg daje bi mu war a daje ak boromam tabaraka wa taala ci naka ngay dajeeg moom kenn ci borom xam-xam yi dëkk ci réew mi yal na ko yàlla sàmm moo ngi dund ci benn vidéo bu ñu envoyé ci whatsapp bi mu ciy wax moom daal li ko tiitloo lenn kese la mooy bis bi muy dajeek boroomam loolu doo nga ko tiitloo xamul ban jëmm xamul naka la ko yàlla di recevoir ndax yàlla da koy recevoir mi ngi kontaan ci moom wala yàlla mu ngi koy recevoir wala da koo mere loolu tiitloo ko ñépp la war a tiital waaye boroom xel mu set mooy koo xam ne yauddu zaada li yawmi lmiaad dafay préparer yóbbal bés ba muy dajeek yàlla waxtu wi nu toll bëccëg yi nu nekk ci la ñuy waajal dajeek yàlla waaye duñ dem ba foofu di ut luñ fa yóbbu li ñuy yóbbu fii lañ koy waajale pour dajeeg sunu borom subhanahu wa taala li gën a baax ci yóbbal nag wa inna xayra zaad at taqwa li gën a baax ci yóbbal bu jullit di ngànnaayoo jëme ci boromam mooy ragal yàlla wa taqwa ixwatul iman ya aadaa'ul waajibaat wajtinaabul muharramaat baatu taqwa li muy tekki mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi loolu mooy at taqwa imtisaalul awaamir wajtinaabi nawaahi mooy jëfeel ndigal yi li la yàlla sant te muy ay ndigal nga xam ne yow la ko sant sant ko kenn ku dul yow jëfe ko li la yàlla tere nga mooy tëndik ko sa kemtalaayal kattan ixwatal iman hadihi hiya taqwa lii mooy ragal yàlla wa bi hada yakunu al insan min al muttaqin nit su buggee bokk ci ragal yàlla day fexe programme bi ko yàlla tëralal pour mu bokk ci ñi ragal yàlla mu jaar foofu ragal yàlla ay critère la ay mbir la yu nit di def ba yegg ci ragal yàlla zalika alkitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqin man hum alladina yuminuuna bilgayb wa yuqimuuna alsalaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wa bilaxirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum almuflihun sunu borom subhanahu wa taala ci mbaaxam chaque jour bu ñuy wax way gëm yàlla yi day wax lii la ñu def ñi ragal yàlla lii la ñuy def ba ragal yàlla ñu baax ñi lii la ñuy def ba baax pour ñun ñi koy dégg ñu jaar foofu même yonent yi même yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla joxoñee baaraam bëgg ci moom mu baax yàlla dafa dajale yonent yépp ne ko ulaika alladina hadallah ñii laa jubal ñoo ngi nii fa bi hudahum iqtadi soo bëggee baax jaaral fi gaa yi baax xataa yonent kon mbokki jullit yi hadihi hiya taqwa lii mooy ragal yàlla wa bi hada yakunu l insan min al muttaqin ci nit ci nii lay nekkee ci ñi ragal yàlla wa bi hada yakunu l insan min al aminina fi l axira ci lii la doomu aadama di amee sécurité am kóolute ëllëg yowmal qiyaama mu bokk ci ñooñu yàlla di wax ne ñii de am nañu kóolute ñii am nañu sécurité ñii ñoo nekk ci jàmm soo bëggee bokk ci ñooñu jéemal nga bokk ci ñi ragal yàlla fa inna man yasbutu ala taqwa ila al mamat allahu yudxiluhu aljanna min gayri adab xaysu naim almuqim alxaalid ki nga xam ne dafa sax ci ragal yàlla li ko yàlla sant mu def ko lim ko tere mu bàyyi waa jooju nga xam ne da cee sax ba dee fekk ko ci kooku sikk nekku ci ne yàlla daf koy dugal aljanna te jubluwaay bi gën a rëy ci dund nit ci kaw suuf mooy yàlla kontaan ci moom bu faatoo yàlla dugal ko aljanna loolu kese la moo tax yàlla mu ne fa man zuhziha ani nnaar wa udxila aljanna faqad faas léeg-léeg nga dégg ku ne bu ma dundee ba sama doom yi sëy rek ma texe léeg-léeg nga dégg ku ne bu ma dundee ba sama doom yi tukki ma texe bu ma dundee ba am kër texe bu ma dundee ba am waruwaay oto texe bu ma dundee ba liggéey texe loolu yëpp du texe texe mooy ëllëg yowmal xiyaam ku yàlla musal safara dugal la aljanna yàlla nee na yow yaa texe fa man zuhziha ani nnaar wa udxila aljanna yàlla mu ne kooku faqad faaz lan la ñu tegal ci aaya ba wa mal xayaata dunya illa mataa'ul xuruur àdduna day leen di nax rek bu ma amee kër texe doo texe fii ngay am kër gi dee keneen ñëw toj kër gi raser ko tabax beneen façon jabar ji fii ngay dee bàyyi ko keneen ñëw takk alal ji fii ngay dee ñu séddoo ko oto bi fii ngay dee ñu jaay ko keneen moo koy war sa lal keneen moo ciy tëdd sa yére ñeneen ñoo koy sol kon li lay muccloo mooy nga dugg aljanna aljanna nag mooy kër goo xam ne an naim al muqim al xaalid foofu dong la nit di am loo xam ne du jeex foofu ngay am kër kër gi kenn du ko donn foofu ngay am ay soxna soxna yi kenn du leen donn foofu nga am xéewal xéewal googu kenn du ko foqarte ci yow jox ko keneen ndax yow kenn yow yaa ko moom ixwatal iman qalilun minna man yaslimu min almasiya lakin al aqil man yushriu liltawba min almasiya wa yubadiru ila nayli almaghfira mbokk yi ñu ëpp ci ñun ñu néew ci ñun ñun ñoo mucc ci bakkaar bakkaar ñu néew ñoo ci mucc ci doomu aadama yi bal sax ndax am na ku ci mucc ndax kulli ibni aadama xataa ñépp ay defkati bàkkaar lañu wa xayrul xataain tawaabuun ñi gën a baax ci defkati bàkkaar yi mooy ñii tuub ñi nga xam ne bu ñu tarxiisee dañuy dellu siwaat abdullah ibnu mas'ud nee na law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta al mawt su ngeen xamoon samay bakkaar di ngeen ma sànni ay xeer ba ma faat abdullahi ibnu mas'ud moom moo wax jure jooju yeneen te alayhi salaatu wasalaam nee na doomu aadama yépp ay defkati bakkaar lañu ki gën a baax ci defkati bakkaar yi mooy kii tuub moo tax mu ne ñu néew ci ñun ñoo mucc ci bakkaar waaye ñan ñoo gën a baax mooy ñi nga xam ne bu ñu defee bàkkaar jéggulu seen boroom seen boroom boobu nga xam ne jéggalaa koon la yërëmaa koon la rot na jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci hadisu tirmisi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla mu ngi wax ci hadisul qudsi yabnu aadam yabnu aadam innaka ma dacawtani wa rajawtani gafartu laka ala ma kaana minka wala ubaali yow doomu aadama yàlla mooy wax ak doomu aadama ci xadisul kursi bu ñu yonent nettali yabnu aadam ma dacawtani wa rajawtani gafartu laka ala ma kaana minka wala ubali yow doomu aadama feeg yaa ngi may yaakaar man yàlla di ma woo feeg yaa ngi yaakaar yow doomu aadama ne man yàlla maa lay jéggal soo ma jéggaloo rek ma jéggal la ak li nga def lu mu bari bari bari man yàlla duma ko faale dama lay jéggal allahu akbar yabnu aadam law balagat zunubaka anaana alsama summa gafartani gafartu laka fala ubaali yow doomu aadama say bàkkaar bu yéegoon ba kaw asamaan law balagat zunubuk anaana alsama say bàkkaar su bëri woon di tegaloo ba yéeg asamaan summa stagfartani gafartu lak soo ma jéggaloo rek ma jéggal la man yàlla wala ubaali faale uma li nga def allahu akbar yabnu adam law ataytani bi qaraabi al ardi xataaya summa laqaytani la tushrik bi shay'an la ataytuka bi qaraabiha magfiratan yow doomu adama soo dikkoon ci man yàlla tabaraka wa taala nga indaale ay bàkkaar yu tol ne peppi suuf bi qaraabil ard xataaya say bàkkaar mu ngi tol ne suuf si summa laqayta nii nga dajeeg man yàlla yow doomu aadama ak bàkkaar yu bari yooyu tol ne suuf waaye bàkkaar yooyu kat la ñuy bëri bëri bëri am na ci boo moytu ba defoo ko mooy laa tushrik bi shay'an bokkaale woo ma ak kenn yàlla mu ne la taytuka bi qarabiha maghfira dinaa la indil lu toll noonu ci suuf daf ko njëggal jëggal la waaye lan moo lay muccal ci loolu mooy bul bokkaale yàlla bokkaale bokkaale googu nga xam ne tey néew na ci jullit yi du ma wax nit ñi jullit yi laay wax ku ci mucc waaw yàlla ak so weli àlla e bu neexee yàlla ak ñaata ci ñun ñoo naan bu neexee yàlla ak dinaa la seet si wala bu léegi sax kenn dootul wax bu neexee yàlla bu neexee diw rek wala diw dina la fay wala diw a ngi lay gis waaw diw a ngi lay gis diw a ngi lay fay diw moo yor fay bi mbokk yi xanaa xamu leen ne jaamu yàlla yàlla moo ko moom kenn moomu ko kudul yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom moo moom jaamu moo yor fay doomu aadama yorul fay même ci koor da ngay dégg yàlla mu ne yonent bi ne fa innahu lii wa ana ajzi bihi man maa ko moom maa koy fay jaamu yàlla yàllaa ko moom ban doomu aadama ngay defal dara ngay defal yàlla dara ba moom mu fay la moo tax yàlla mu ne doomu aadama lu mu def ay bakkaar bakkaar yi lu mu tol ne montagne yi suuf su doomu aadama dajeeg man bokkaalewu ma yàlla mu ne dinaa ko indil yërmande bu tol noonu baal ko kon moo tax ñu war a moytandiku bokkaale léeg-léeg booy wax bokkaale ñu yaakaar ne takk téere kese la takk gàllaaj yaakaar ku dul yàlla bokkaale la gëm ku dul yàlla bokkaale la yaakaar ne ëllëg mun nga faa am yërmande te du bàyyi ko ci yàlla bokkaale la lekk ba pare sant keneen bokkaale la feebar wér sant keneen bokkaale la moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam ne ashirk axfa min dabibi nam la bokkaale moo gën a sew tànki xorondom xorondom mooy mbelentaan bu ñuul boobu axfa min dabibi nam la moo gën a nëbb tànki xorondom ay tànkam mbelentaan bu ñuul ndax mën ngaa gis tànkam loolu sax dafa doy waar waaye melentaan bu ñuul di dox ci xeer wu ñuul ci lëndëmu guddi ñu ne la xoolal tànk yi namlatu sawda ala xajarati sawda fi zulumati leyl melentaan bu ñuul di dox ci kaw xeer wu ñuul ci lëndëmu guddi ñu ne la xoolal tànk yi yonent bi nee na noonu tànk yi jafee gis bokkaale noonu la mel tey réew mi ñu ci ëpp ay bokkaalekat lañ ñii dañuy jaamu ay bàmmeel ñii di jaamu ay xarfa fuufa ñii takk ay lam ñii takk ay galaaj seen ndigg yi ñii ci seen oto yi ay galaaj ñii ci seen buntu kër yi waaw gëm xarfa fuufa waa ji nga xam ne ndeysaan mooy tabax yi yàlla da kaa weer semaine bi fajar ma julli ci benn jàkka ba pare génn jëm sama kër rek ma fekk waa ji ci benn jàkka ca morgue ba muy jël sagar yi ñuy sangee néew yi bagage yi ñuy sangee néew yi moo tax chaque jour dañuy wax ne ñi sang néew yi ci armeel yi ci place yi ci jàkka yi suñu sangee ba pare nañu góorgóorlu seen kemtalaayal kattan bu ñu fa bàyyi la fa des jàmpe yeeg saabu baag witeen baag gaa yaag ah morso yi ñu daan fompee néew beeg kawar yi ñu jële ci néew beeg bu ñu fa bàyyi dara ndax boo ko fa bàyyee rek gaa yi jël ko dafa ne mën nañ cee xërëm ay nit te yëguñu ne wa ma hum bi darrina bihi min ahad illa bi iznillah waaw tibb tànku nit wala jël ay turam wala wala wala di ko di ko di ko suul wala dafa ne mënal nga ko dara ayna allah ana yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la te wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum muminin su fekkee gëm ngeen yàlla jàpp leen ci yàlla ixwatal iman yàlla tabaraka wa taala du jéggal bokkaalekat ku jël ay xërëm lan moo tax ñuy sulli néew yi ci nakaaru xërëm kese la di sulli néew yi ba ngeen déggee làmb ji daanu ba léegi déggatu leen néew bu ngeen sulli waaye bu làmb ji commencé dara ñu commencé waat sulli néew yi ndax ñi leen di xërëmal ñoo leen di laaj ay yaxu néew ñoo lay laaj bëñu néew ñoo lay laaj weewu néew ñoo lay laaj garab gu traversé néew demal nga daggal ñu reen bi nga indi ko tey loolu du jeex ci sunu dëkk bi ay xërëm yu dul jeex waaw magasin yi ay xërëm la ñuy suul ci bunt yi ah bitig yi ay xërëm ku xëy suba da ngay xërëm dafa ne xërëm mën na laa may dara ana yàlla koo ne jàppal ci yàlla mu ne la yii yàlla kese kese dafa di tax loolu wóoru de boo gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf yooyu lañ lay wax ah yow doo takk dara doo naan dara yow da ngay xaru rek yow xanaa moom ii gaa yow yow yow da ngay xaru yow leen nga dee ana yàlla ana aaya bi wa man yatawakkal ala allahi Moussa lan la takkoon keroog bi muy jàkkaarloog Firawna lan la Moussa takkoon Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam keroog ca Badar lan la takkoon ah sahaaba yi lan lañ doon takk bu ñuy dajeek waa Quraysh yonent yi lan la doon takk bu ñuy dajeeg seeni noonu lan lañ doon takk mooy lan inna ma'i rabbi loolu moo doon seen gàllaaj keroog bañ ne Moussa tey nga dee Firawna ngii di ñëw soo avancé ci kanam géej gi labal la soo demee ci Moussa ngi sa kanam Firawna ngi sa kanam gaa yi tiit inna la mudrakuun danañ ñu dab mu ne leen inna ma'i rabbi sama borom mu ngi ànd ak man loolu la Moussa waxoon ca géej ga mucc loolu la Ibrahima waxoon ca safara sa mucc loolu la Yuusuf waxoon ca biir teen ba mucc loolu la Yunus waxoon ca biir jën ba mucc loolu Nuux moom la waxoon ca biir gaal ga mucc moom la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon yowma badr mu daal di mucc alladina qaala lahum nnaas inna annaasa qad jamacuu lakum faxsawhum fa zaadathum imanan fa qaalu xasbuna allahu wa nicma alwakil ab julit loolu lay wax mucc waaye ay gàllaaj ay ndombo ay téere ay lam yu ñuul njehen ɓohe ɓaleeje lootoɗen toon yaaɓahe ɓoleeje est ce que a lootiima mbela a haɓɓi mbele mbele mbele mbele nafata haydara kala ko kaɓɓuɗa janngo yowmal qiyamati ma haɓɓin yalnan yo allah won dëgg mo wërsëgal ñu topp ko yalnan yo allah won neen mo wërsëgal ñu sori ko alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fantabihu jayidan ya ixwata aliman lima jaa fi hada alhadis alqudsi an illahi tabaraka wa taala yabnu adam لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فأعظم حقوق الله تعالى على عباده هو التوحيد تعالى وأن لا يشرك به شيء لأن الشرك بالله huwa akbaru zanbin yaqtarifuhu al abd wa huwa zanbu alladi la yaghfiruhu allah wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء mbokk jullit yi ñu delloo ci xel yi fantabihu jayidan xerewlu leen nee leen tekk te déglu suul gàllaaj amul benn njëriñ boo ko suulee dalañ ko sulli boo ko takkee dalañ ko tekki boo ko naanee di nga ko yóbbu wanag boo ko lekkee dina rees mu des nga dajeeg yàlla tabaraka wa taala ñun ñëpp nañu ànd xerewlu ci hadisul qudsi bi ñu wax léegi borom bi tabaraka wa taala wax ko ne yow doomu aadama boo dikkee ci man ëllëg yowmal qiyaama yaa ngi indi lu toll ne ay montagne ci suuf ci ay bakkaar man yàlla dinaa la jéggal feeg bokkaale woo ma kenn feeg bokkaale woo ma loolu moo lay wan gravité bokkaale loolu moo lay wan ne dangaa foqarti ak yàlla jox ko keneen dangaa jël li yàlla moom nga jox ko keneen te tey néew na ku ci mucc wax naa léegi oto yi baari bi gàllaaj kese la oto yu bëri baar yi gàllaaj kese la waaw ku kuñ fi jox dara sax kuñ fi takkal ndomba tànk sax balaa ngay sa xel di dal mooy foog nga dem gàllaaju ji waaw foog nga takk mbaa nga naan mbaa nga sangu ñett yooyu kese la yow doo takk nga ni déedéet doo naan déedéet doo sang déedéet lu ci waaji di teg au lieu mu ne alhamdulilah yow ku baax nga mu ne yow da ngay xaru rek wóor na yàlla yow da ngay xaru yow léegi nga dee kan moo lay rey kan moo moom ruu yi feeg delloowuñu sunu bopp ci yàlla sunu pas-pas yi du set te nit bu pas-pasam setul dafa salte lan la yàlla doon wax bokkaalekat yi bu ñu jegee jàkk ji feeg ñu ngi bokkaale ndeysaan suñu benn borom xam-xam génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm gars yi dañ ko laajoon ne ko benn jàkk imam bi day takk téere day takk gàllaaj mu ne cam ak a salte imam buy takk gàllaaj naka ngay takkee gàllaaj ba pare taxaw ci kanamu yàlla naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in du dëgg iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sa ndigg li ay gàllaaj mu ngi fi ay ndombo sa loxo yi ay galaaj mu ngi fii sa loxo bi ay lam ñu ngi fii sa baaraam yi sa dënn bi sa oto sa buntu kër galaaj yi du ji jeex xanaa xamu leen ku takk téere yàlla bàyyi laa téere bi man allaqa tamimatan fala atamma allahu la man allaqa shay'an wukkila ilayhi yàlla nee na yonent bi nee na ku takk dara yàlla bàyyi la ak li nga takk ku takk dara rek yàlla bàyyi la ak loolu mu xool ndax loolu la wala moom la te ku takk nga laaj yàlla dootul mësal dootul defar say mbir fala atamma allahu la waaw ñu bari ci ñun dañu jàpp ne yooyu ñoo leen di musal bokkaale yàlla tibb ay suuf for ay xeer ah di dëgg ci ay xobu poftan benn mbokk démb barki démb dafa ñëw kër ga mu ne damaa takk soxna ñu takk ma xala nga léeg day am ay saay-saay yoo xam ne soo bëggee xale bu jigéen bi ñu bëgg ko yàlla def yow nga jël ko dañ lay takk bu ñu la mayee xale bu jigéen bi doo ko munal dara waa ji ñu may ko xale bu jigéen bi une semaine munu ci dërëm mu ne ma dañ maa takk xala ma ne ko loolu de ak a yomba dindi loolu de du dara mu mu gëmu ko mu jaaxle ma ne ko loolu du dara bul fay kenn dara xanaa jànguñu ci sunna yonente alayhi salaatu wasalaam nee na njabar lu koy dindi mooy jëlal juróom ñaari xobu sidéem nga teg ko ci xeer nga jël beneen xeer nga def ko ci bool nga ciy sotti ndox di jàng aaye sehri bu ko waaji di sangu muy day démb waa ji wooma ne ma alhamdulilahi rabbil alamin affaire yi dañ na de imaam ma ne ko wa man yatawakkal ala allahi fa wa hasbu yàlla lim ñu wax mooy dëgg waaye nun noo dëgguwul ñoo setul boo demul rek ñu jënd loola xar mu ñuul ne la solal mbubb mu ñuul utal paaka mu ñuul dàll yu ñuul affaire bi du yomb da nga naan non loolu su kenn ñëw ne la imaam ñaanal ma nga ne ko dinañ jàng ayatal kursi yu mu ne ayatal kursi yu kese waaye foog nga ne ko dama nga jënd dàll yu ñuul nga wut paaka bu ñuul nga wut xar mu ñuul nga bàyyi ba mu ñuul kukk guddi gi ñuul kukk nga dem ba digg géej bu la kenn gisul nga rendi ko foofu loolu nag su ko defee waa ji mu ne alhamdulilah mbir mi normal na ñun ñëpp noonu la ñu mel bokkaale guddeeg bëccëg yàlla ku ko boogaale du la baal innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizalimina min ansar yàlla mu ne ku ma bokkaale dindi naa sa tur ci waa aljanna safara nga jëm direct loolu moo ne bokkaale baaxul xoolal yonent yàlla muhammad ni mu toll sallallahu alayhi wa sallam ndax am na ku gën a màgg muhammad ndax am na ku gën a màgg muhammad xayru xalqillah yàlla mu ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin wallahi yow muhammad soo ma bokkaalee sa jëf yi nga jëfoo yépp yàqu na te ëllëg yowmal xiyaam di nga bokk ci way perte yi su yàlla waxee loolu muhammad keneen luñ la war a wax yàlla kenn waru ko bokkaalee hatta jinne yi sax xam nañ loolu wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan wala walada waaye bokkaale guddeeg bëccëg nit dalay tàgg tukki sax nga ne ko boo demee ca bàmmeel ba tibbal ma ca suuf sa waaw nit indi ndox ne la barkeelul wala ndox ay ndox ay xeer dëkk balaa jógee de for naa ci xeer yi nga ni may ma ci nga gis kuy lekk xeer di mëq suuf waaw yére sëriñ bi de lañ fóota mbub mi nga gis waa ji dinaan póotit mi allahu akbar dinaan póotit allahu akbar ndax lan ndax mbubb bu ñu fóot mu koy naan ndeysaan ndax bokkaale yi dul jeex intabihu jayidan ya ixwata al iman fa azamu huquq huququllahi li gën a rëy ci ay àq mooy àqu yàlla mooy kennal ko moom yàlla tabaraka wa taala ala ibadi ci jaamu guñ koy jaamu mooy nga kennal ko moom yàlla bañ koo bokkaale ak kenn ndax lan bokkaale mooy bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi laaj nañ ko yonent ayu zanbin azam qaala an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak yow yonent dañ lay laaj ban bàkkaar moo gën a màgg ci bàkkaar yi mu ne mooy nga utal yàlla moroom te xam nga ne yàlla la bind nañu mooy tëndiku loolu pour ëllëg ñu bokk ci al aminina min al axira foog ñu mooy tëndiku bokkaale foog ñu mooy tëndiku ay bàkkaar yàlla tabaraka wa taala nee na man yàlla dinaa jéggale lépp ba mu des bàkkaar inna allaha la yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasa musibe fulɓe caggal yettude allah e julde en elaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa sallam hutba men hande wonno kayfa takunu min al aminina hono waɗanmi ha janngo mi jeeye e ɓen ɓe annduɗa eɓe jogii hoolaare joomiɓe joomiɓe ina nanna ɓe aljanna nde ɓe wuuri e oɗo aduna ɓe yalti aduna ɓe maayi ɓe yalti aduna ɓe fotte allah ɓe dañi hoolaare allah nananno ɓe aljanna holko ɓe waɗi haa ɓe dañi hoolaare woni ɓe rewi allah ɓe ndendima oɗo bakkat biyeteɗo shirk shirk woni rendinde allah e goɗɗum jamɗe piɓe kala hunde ƴetta cikka ɗum ina danduma te ala ko dandata so wona allah wajiɓe ɓe wi so tawino allah du ina nafa ummota koye hoore jomum a jaggay jawdi neha ha mawna wara ñaama tewngu ɓuucoɗa ƴiye ɗe nguru ngu peŋa ha yoora aɗa juula hen ƴetta allaadu ndu haɓɓa e keeki ma walla haɓɓaga bitig ma walla haɓɓaga damal galle ma walla kaɓɓana ɓiye walla kaɓɓana debbo ma wiya kala memɗo ma mayayi allah ndu hoto ummi allah ndu so tawino ina wawi rende oɗo kaɓɓuɗo ɗum o o renat to ummi to walla ɗum wona gonga so tawino allah ndu ina nafa ummotako e hoore jomum mbatten haqqillaji ƴeewen joni ngoɗo rendo ndiɗo leydi gueɗe tati sa waɗani ɓe wiya an a sellani an aɗa haɓɓa wiya ala an aɗa yara wiya ala an aɗa looto wiya ala ɓe an joni maya a haɓɓata a yarata a lootota ko e ande a dañta haydara annabi moussa nde o fottata e firauna ko haɓɓuno annabi yusuf nde o natte ɓundu ndu ko yarno yunus nde liingu ngu moɗotama e nder geej omo woni e niɓɓe tati holko yarno holko haɓɓuno annabi ibrahima nde allah nde o nannata nde o nannate e jeygol ngol holko haɓɓuno ɓen ɓe kaɓɓani ɓe jarani ɓe lootake te ɓe daɗi e noon noon wiyen yen haɓɓu yen yar yen looto kaɓɓen jaren lootoɗen en dañta hen so wona bakkat janngo fottane allah allah subhanahu wa taala tikkana en wal iyasu billah o weddo en e nder jeygol par ce que en rendinimo e goɗɗum allahumma ihfir lana qabla almaut warhamna inda almaut wala tuazibna bada almauti birahmatika ya arhama arrahimin allahumma ya hadi ihdina sirata almustaqim sirata alladina anamta alayhim min annabiyina wasiddiqina wasuhada wasalihin غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله